wax nag ma ni depuis daanaka quinze heures yéen a fi fi ngeen dogo toog di xaar naaj bi fekk leen fii lépp fekk leen fii mais ngeen doo leen bouger te gisuleen le président Déthié Fall foofu la mën a yam te loo leen ci cofeel xam leen ni ëmbal cent fois plus di nuyu di gërëm di ziar di féddali kóllëre ak taalibe ci le xalif général Serigne Mountakha Mbacké di nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp ñoom ñëpp di suñuy sëriñ ñoom ñëpp bàyyi ñu xel ñoom ñëpp faggu ñoom ñëpp def ñu taalibi ñoom ñëpp ñu leen di dox seen wàccu Mbàkke lu mu gàtt-gàtt lu mu metti metti mënuñu fi woon bañ a ñëpp xam na ni campagne bi douze jours la metti na nga def quarante six département mais bu doon sax cinq jours du tere mu yegg si Mbàkke li ma fi ñëw bare na fi dugg bare na dama fi ñëw di ziar dama fi ñëw di yeeslu dama fi ñëw dem ci kanam samay sëriñ tout le temps di féetali kóllëre taalibe dama fi ñëw it di ziar samay ñaari waajur ñoom ñëpp ñoo ngi baax yaa kii yàlla na leen suñu borom xaral àjjana yi gën a kaw dama fay dugg te xëy na nit du ma yëg sax param ndaxte fu say ñaari waajur tëdd danga fay ñëw di leen ziar yàlla suuf sedd seen kaw sedd ci kaw képp ki nga xam ni jiitu noonu Mbàkke kenn ko wax te doo wax Touba Touba dëkku Xaadimu Rasuul Touba nga xam ni ko yàlla defal umpul kenn Touba nga xam ni li ñu namm bu yàlla joxe réew bu yàlla joxe réew yàgg doon mbébét nga xam ni saa su ne gouvernement bu ne bu jaaree nga dégg loolu ñu koy wax ndox mu neex assainissement ndax inondation loolu dama ni bind leen ko bind leen ko bu ñu yàlla joxe réew ndox dina fi neex ndox dina fi neex ndox fu ko mën a jëlee muy kër Momar Sarr wala feneen ak fu mu mën doon daan ko traité ba mu neex ba mën a askan wi ba mën a jëriñ Touba ñu jël canalisation yi war indi ko mu nekk. am na ñi nga xam ni bugguma ci Sénégal mu doon ay doléance dafa war a doon ñi nga xam ni da koy xool jël solution technique yi nga xam ni moo war jël personnel bi war bu ko defee ñu mën ko régler dans les meilleurs délais assainissement la même chose. ndaxte inondation ñu ko am ci dëkk bu tedd bi ñu koy wax ay décennies et des décennies encore loolu dafa war a dakk bu ñu yàlla joxe ndam daanu mobiliser tout le tous les services concernés jox leen un délai précis et très court pour que ce problème soit réglé et que cette page soit définitivement ndaxte fépp fu ma jaar dama question yooyu warul doon question ndaxte loolu dafa war doon li nga xam ne danga koy régler ci touche bi après ñëw ci encouragement mais dëkk bu mel ne Touba taxaw di wax encore inondation ci yenn zone yi ci zone yi nga xam ni kilifa dina jóge fu nekk ci àdduna ñëw pour siyaar kilifa dina jóge fu ne ci biir Sénégal ñëw pour ziar kon foofu da ngay def les conditions requises da ngay def les conditions da nga xam ni ku ñëw ren gaaw a bëgg dellu si déw seen bi nag moo fàggul boppam Touba fàggul boppam yu bare bare ku ci ñëw rek daan ko ci fekk daan ko ci fekk loolu bu ñu yàlla joxee ndam lu may jël comme engagement la yu jeunes yi li jëm ci santé yi li jëm ci secteur informel xam nañu ni fii boo ñëwee xam ni ñu am jom ñoo fi foo dem ci àdduna muy Italie di Espagne di États-Unis di Gambie di Côte d'Ivoire fu lim boo demee xam ni ñu am jom ñoo fa di liggéey kon lii nga xam ni tey jii nii moom la xam xam ko ci Sénégalais yëpp it loolu la ñu bëgg mu matérialiser wu fii ci Mbacké matérialisé dans tous les départements du Sénégal bëgg naa la philosophie liggéey jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla et cette philosophie soit la philosophie bi nga xam ni moom la ñuy am en bandoulière moom la ñuy am ci suñu kanam bu ko defee ñu baawaan ko fépp ci biir Sénégal pour que le Sénégal bon à vivre et beau à voir dina ko am na te it fépp fuy cité religieuse ci biir Sénégal duma seetaan inondation am du ma seetaan yit problème mu ndox am fa ndaxte bu yàlla defee mu doon ay foofu kenn waru ko sàggane waxuma laak nag Touba kon lii may wax engagement boo leen mën a enregistré la bind leen yàlla nu yàlla dox ndam le vingt-quatre mars bu baax responsable li fi gis naa seen liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax a baax muy Massamba Diop gis naa taxawaayam muy Basirou Sy gis naa taxawaayam muy Baye Djili gis naa taxawaayam muy Ami Kole gis naa taxawaayam muy Ibrahima Goumbala gis naa taxawaayam Moustapha gis naa taxawaayam muy Ami Baxaaw gis naa muy Ami Silla gis naa muy Maam Fatim Mbacke gis naa muy Dumaani Ndaw gis naa muy Abdoulahad Fall gis naa muy Abdou Khadir Dieye gis muy Jibi Ndiaye gis muy Yacine Touré gis naa taxawaayam muy Adja Fall gis naa taxawaayam muy Massamba Niass gis naa taxawaayam muy Khadija Diallo gis naa taxawaayam muy Ibrahima Fall gis naa taxawaayam muy Fallou Niass gis naa taxawaayam muy Fallou Gueye gis naa taxawaayam Move you straight muy Fallou Ndiaye gis naa taxawaayam muy Ba gis naa taxawaayam muy madame Ndaw gis naa taxawaayam ku lim juum ku nu fàtte nga xam ni rek yéere du la na jëli carte yi gis nga dama bëgg dama bëgg dëgg defar Sénégal dama bëgg defar Sénégal dama ko bëgg teg ci yoon teg ko ci jub teg ko ci liggéey liggéey bu ànd ak liggéey bu ànd ak fayda dama bëgg li ñu xàmmee xam ko ci suñu xar mu doon ci bépp Sénégalais bu jël biir réew ak bitim réew ñu gën sa bopp xam sa bopp loolu laa bëgg bu yàlla joxee Sénégal ñu liggéey que noonu ba Sénégal foo mën dem ci àdduna ñu xam ne ñii ay liggéeykat la ñu foo mën dem ci àdduna bi ñu jox lu ceeb bi waa te loolu bu yàlla defee le 24 mars ngeen def ma confiance voteel ma massivement je prends l'engagement solennel de faire en sorte le Sénégal soit positionné dans la sous-région qu'il soit positionné dans le monde et que le réew réew bu yàlla may nawet réew bu yàlla may suuf réew bu yàlla may jant réew bu yàlla may ay kilifa yu mu nangu seen ñaan mu rus seen ñaan yu mu may ñaan ñuy ñaan ñaan ba ci ñaan yooyu woon bi pétrole ak gaz yegg si fekk fi zircon or phosphate fekk fi fer réew moomu yàlla deseenu ko dara ba pare may la géej gi nga xam ni moo ëpp si suuf kon li ñu dese mooy liggéey te liggéey boobu bu yàlla defee ngeen def ma confiance xam leen ni je Sénégal je serai premier Sénégalais bi nga xam ne mooy njëkk yeewu pour jublu ci liggéey bi je serai le premier sénégalais bi nga xam ne mooy mujj tëdd pour jublu ci liggéey bi damay wax ni un dirigeant da nga war yanu coono bi pour sa noflaayu askan mais un dirigeant waroo nekk ci noflaay bàyyi askan bi ci coono bu nu yàlla mayee ñu jël Sénégal bu sori et nous serons de véritables serviteurs au service du peuple sénégalais xam xam ni liggéey rek laa xam ku ma xam xam ni fépp fu ma mës a liggéey ci ñi njëkk xëy laay bokk ci ñi mujj wàcc laay bokk te li may am comme objectif toujours mooy mbir mi jëm kanam mooy fexe. ba képp ki nga xam ne seq naa ak moom liggéey bi mu gis ci boppam te bu ñu yàlla defee président de la république du Sénégal kuy tappale doo fa toog ku liggéeyal pour askan wi doo fa toog kuy jël xaalisu askan wi fa toog kuy nax ku nekkul problème askan bi doo fa toog bu fa des rek xamal ni jamono coono bi def pour que askan bi nekk ci offline te loolu li may appliqué dans tous les domaines dans le domaine de l'agriculture de la santé de l'élevage de l'éducation dans le domaine des infrastructures dans le domaine de la de l'assainissement dans le domaine comme ni ngeen ko xamee fii pour am ndox mu neex ak yeneen ak yeneen di gërëm di ziar bu baax encore une fois suñu kilifa yi di leen ñaanal gudd fan ak wér ak mission bi ñu am pour adduna bi am ko pour également suñu diine yi suñu boroom mën leen may ñu mottali ko ak jàmm la ca des foofu laay tëjee mooy na ngeen xàmme bulletin bi bu ngeen ko jaawalee bu jaune ak blanc bi xàmme ngeen ko xàmme ngeen ko xàmme ngeen ko maa ngi gërëm bu baax sëñ maam moom ba ma dalal bare na it ñu ma yegg si ci ñoom wante xam naa ni daanu xam ni xat day am wante maa ngi gërëm lépp gis naa it teraanga yi nga xam ni yegg si na nekk def na sa teraanga indi ñoo ngi gërëm di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di beral gërëm it wax fa dëgg yàlla tudd naa ko léegi nee tuddaat ko moom mi ci am taxawaay bi bare bare bare bare mi sëriñ si di wax ni ci teral bi ñu gis naa sama mbokk journaliste yi daanaka dégg naa bu ñu paree suñuy waxtaan ba pare dañuy toog di ma tooñ rek ñu la ngay tudd jamono yi daanaka moom lan la tere muy lan dama di leen xam nga nen ku ko toj ñaari couleur nga cay fekk lii ban couleur lii ban couleur moo tax dama bëgg le 24 mars ñu yeewu xëdd bu ñu ba pare dem laaj ci biir terrain bi bu baax a baax a baax si jotee mais ñu dem dogoog leen gën a fekk bi ñu moo tax bu leen ko fàttee da ngeen ko xàmme bu baax a baax baax baax ñu sama mbokk Baye bu baax a baax a baax baax baax xam nga mbokk la ñu ñu bare li ñuy umpule mooy sama cosaan sama cosaan nan li fal la nan li fal daanaka man ak sama waajur wu jigéen ñoo juddoo Ndar wante samay maam yëpp naan dafa fan di leen gërëm di leen sant yàlla na yàlla may ndam bu yaatoo yaatu le 24 mars